Sonko namu nan la Sonko namu nan la Focus. Yes. Allah. Duyuyor ne oldu sen? Ben dedim bak. Dedim bak. Hey hey hey. Dedim bak. Anda balanga dulu palmana jalan nang kah. Hey. Hey. Anda. Hey. Ada ada. Ada. Ayo ayo palmana ingat jok. Hey. Ada. Ada. Ada. itam daa da nga gis wëndëngu taxawàllu ba daal ñew laaj réew mi Sénégal la lañ ko bëgg jappé jàppe bu amul couvert dal. <laughs> ndeyiku la nox ama njaab nii loolu top Anta babakar bàyyeegu ko ba léegi ndekam Anta dafa gis ay nit yu ànd ak kankurang di ambiance ke jengal naka nonu ci le profito burux lu dugg sen bir def ay photo ak ay vidéo assalamu alaykum gaay ñu ngi leen di bëggee di leen dalal ci ëttu jëglé kay nee na Anta Babacar dafa gis kankurang yi rek sarax ci biir mbooloo mi du woon mbooloom de mbooloo kankurang bu saa aaj laa ki mais ah gars yi dañoo bëri pexe de pexe dañ ko bari ga gars yi ko wax. kankurang waaw rek mu mel ni mooma te mberke mbooloo ba ca gannaaw kankurang la woon gars yi dañoo bari pexe parce que Anta Babacar wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla. électoralement parlant politiquement parlant Anta Babacar rek nga war a laaj fu mu toj nag da nga yeb président Ibrahima Diop rek mais Anta Babacar war ngaa wut numéro am fexe ba am ko nga envoyé ko audio ne ko Anta foo toj ba war a jeewu rek ne présidente de la république du Sénégal nga war a doon ah. Anta. ah Sénégal ñu fi doon moom dafa am fi dafa dafa doon jàmbaar rek. Uh-huh. parce que gis nañ fi candidat bu. jéem a rek gën a gën a gën a tamit lu buruxlu buruxlu ku nekk jéem asalaam asalaamaaleykum sama gars yi sama gars yi ziar naa leen bégeeti naa leen joxati naa leen seen wàccuwaay di leen dalalaat seen seen YouTube comme ni ma koy faral di defee di leen waxaat ngeen di abonné comme ni ma koy defee di leen waxaat ngeen di like comme ni ma koy defaat like nag dama ci insister parce que loolu kese kese moom moo mën a jàppale seen bi quoi ak ñi nga xam ne ñu ngi abonné mais ñi abonné ñi like ñoo leen di invité loolu bàyyi leen si xel kon bu leen fàtte like gi sama gars yi xam naa da ngeen koy fàtte parce que seetlu naa ne saa yu ma leen ko fàttalee da ngeen di like bu baax kon xam naa da ngeen koy fàtte mais bu leen ko di fàtte euh, Anta Babacar Ngom xaw ma Ngom la xaw ma nan daal en tout cas Anta Babacar jamono yi si ginnaaw am na lu ma la waxoon mais dafa mel ne dégguloo ko Anta Babacar Eh, Anta Babacar ni nga duggee ci politique baaxul quoi man nag dama lay critiquer positivement quoi parce que du ma ñëw rek di asana si kaw Anta kar yow dama lay gis ngay eh, booy day def say caravane ay jakarta yu bari topp la ñi sol ay tiset fii li ma si gën xorom lool nag def ma ci ay reetaan mooy ñi la naan ay ñun gëm ñu Sonko yow lañ gëm defal ndànk Anta Babacar loolu bu ko dégg bul diglu booy yooyu di la wax loolu booy yooyu Sonko lañ gëm dañ lay nax booy yi lay wax loolu gëmuñu la de te gis nga balaa nga xam ne gëmuñu la gis nga dugal ci réseaux sociaux nga dem YouTube nga tàppe Juma Jang Jaxate wala wala wala Amsatou Sow Sidibé nga laajte lan moo xewoon 2012 quoi boo demee ba xool li xewoon 2012 après boo dellusiwaatee yow di nga xam naka nga war a doxalee damay bañ nag eh, élection yi jour élection jot nga dajale say mbokk yëpp toog ak ñoom. ñuy lire euh, liste yi di wax kenn ku nekk nombre de voix yi nga am ñi jikki-jikki geesu duñ la gisati loolu laay bañ yollee ko loolu xale nan mu ngi yollee damay bañ jour élection yi nga yollee ko ragal naa ko trop trop trop trop am anta anta jour élection ba 18 jot boobu nga doog comprendre anta anta bul bul yàq sa xaalis quoi gars yi dañ lay nax ni ngay duggee politique nii man man man personnellement man man dag may saf système bi quoi système bi rek nga may saf xaw ma ci nga bokk xaw ma ko ci waaye système bi nga may saf maanaam façon bi ngay politiquer nii quoi da ngay sincère sincèreal tuuti xoolal génnal nga dem ci nit ñi ñi nga xam ne gëm lañ ne dinañ ñëw si yow quoi mais dama lay gis nga dóor say tiset nii wut ay jakarta ñu topp la booy taxawee fenn booy yenn booy ñëw taxaw noonu naan la Sonko Sonko du sa kan du sa concurrence Sonko du sa nawle Sonko du nawle Ibou Ndafa sax waxu la ak nag yow mi nga xam ne kenn xamu la ci politique sa genre gi mooy ñi nga xam ne comme nii élection yi jub si nañ ñëw nañ bokk nañ ci lañ leen di dégg bu élection yi jàllee nii dañuy disparaître parce que bu ñu làmbee mu dëgër dinañ xam ne fii du seen place yéen kay lenn moo leen di dugal ci politique genre yii nii lu ci baree baree bari maanaam dañuy après bu fekkee deuxième tour am na ñu jéem a xool kan la ñuy jàppale ci deuxième tour bi léegi buñ faloo ñu paacoo loolu moo mës a am sans façon système boobu moo mës di am Sénégal mooy bari na ñuy dugg ci ay élection yoo xam leer na leen ne seen bopp yi attanul réew mi mënuñu ko jël mënuñoo jël sax quatrième wala cinquième ndaare la ñuy jël wala avant ndaare mais dañuy bokk uniquement pour bu deuxième tour amee ñu xool candidat bi ñu ëpp ci moom yaakaar ñu dem ànd ak moom pour bu faloo ñu jox leen benn poste wala et cetera loolu nag jeex na de def leen ko seen xel yéen ñëpp Sénégal bi war a tabaxu deux mille vingt quatre Sénégal beneen Sénégal la Sénégal bu bees tàq la la preuve gis ngeen li nga xam ne moom stratégie bi nga xam ne moom la président Ousmane Sonko teg mooy ut lu mat cinq candidats cinq candidats yëpp dañuy wëlbatiku jubluwaat ki nga xam ne mooy man Ousmane ko mais stratégie la lii laa fi waxoon ci jamono yee passé am si ñoo xam ne ànduñoo man gis nga ñi toog seen roqo yi di gëmmu gëmmulu ak dëgg dëggalu nan amuñu plan B amuñu plan C dëgg la mais gis ngeen Ibou Ndafa fi fi mu tollu nii gis nga ku demul ak moom ci stratégie pertement kase nga jëlee parce que bu dee gatsa gatsa gars yi da nga leen di ci mbedd mi trois jours lañ fay def delluwaat seen kër yi doxi seeni soxla léegi après li nga doon xeex du am benn suite pour nag jàkkaarloog Ibou Ndafa man koo gagné ci élection yi di ñëw stratégie lay laaj il faut nga yor ay tànk yu bari mais yor benn tànk rek buñ nekkoo teel dam jëm da ngay dem outil beke wala nga dem outil sario mais il faut nga out ay tank yu bari ñent ba juróomi tank xanaa ay bu ndafa nag moom munta musa ko muccet ba calé 5 candidat yoy yeb force day am bu recc te bi recc nonu waaw moy don bal buy tak bi ak bu mu si manti don l'essentiel 2024 nguur gi waru recc patriote yi parce que yeen électorat bi ngeen yor waroo len ko perte 2024 te perte ko nak weesuwul ngeen bëgg a dëgër lu bop wala ngeen di gis ben affaire ba nag bëgg ko gëmm day bëgg a gëm affaire bi li may wax nag comprendre ngeen xam ngeen fi may waxee ba ba pare Ibou Ndafa moom bu leen yaakaar mukk mukk mukk ci coobare boppam mu génnee Ousmane Sonko ci kaso bi xalaatu ko ci àddunaam bu leen ko yaakaar te gis nga kim fi joxe kim ki mu jël comme candidat nii bis bu fal woon kooku du génnee Ousmane Sonko parce que bu génnewee Ousmane Sonko menace lay doon ci moom ak nguuram parce que Sonko ku mu nekk sa opposant doo am jàmm ndax mbooloo mi ko topp bari nañ te askan bi jox nañ ko bopp boo xam ne kooku moom tëj ko ci kaso bi noppiloo ko rek ci ngay mën a nooyuwaatee kon nag ku jàpp ne Ousmane Sonko mii gi comme ñun ñi nga xam ne ñun la dénkoon boppam lañ mënoon ci xeex ak def lañ war a def yëpp amaan def nañ ko ba nga xam ne sës nañ te yàlla dogal na mu ngi si biir kaso bi stratégie moo fi sës sinon ko fi toog sa ruq naan nii naa nanga nangam Sall day massacrer sa waay ba noppi ci élection yi jox ko Amadou Ba ñu gëna torox voilà seen voilà yam nak de résultat des élections législatives euh, qui nous ont été communiqués par la commission de recensement de vote ont obtenu parti de la solidarité 62 députés parti Dolel Sénégal 74 députés. André folli pouvoir bi 46 députés. André Djoubo 5 députés. Oh, Parti intérêt travailleur 3 moom moom. moom voilà leen damay kànk damay naa leen pion ba. kànk bu sa bokkal la li jaaxal askan wi. kànk bu sa bokkal la. lu jaaxal réew mi. jërëjëf Soumay. moo jaaxal nasaraan yi. bàcc ma la. jéem a gono bàcc ma la. jaaxal asiatique yi. moo may nabu. jaaxal borom réew mi. bul jàpp bul jàpp bul jàpp. jaaxal gouvernement bi. bul jàpp bul jàpp ndax def nañ lu fi musta am. bul jàpp la ko wax. ba politique di politique di yëpp. waaw waaw ñun de journaliste jaaxal nañu. parti jaaxal ma jàpp. jërëjëf. le frage. No France. Zéro. Zéro député. Maintenant, ki Mbelmbel FM la compte. FM dañ la compte booy si daat la moo defoon élément bu bon ba ci yow. ñax bi laa lay. man tamit. toile toile. man tamit bu baax a bëri ba waaw donc euh, yii yëpp daal bu ñu ko amee dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax di wax gars yi nag ne ne leen ñoom ñun bett nañ leen man dina wax ji xëy na mooy njëkk wax ci mbir mi mais ma wax ko pour mu leer ma wax ko pour mu leer lii yépp kenn du fi candidat. Ousmane Sonko reste notre seul et unique candidat pour Mouler. leer na analyser Je wax ko Ousmane Sonko reste notre seul et unique candidat Mon la ñuy àndal di xeex ci lii ba le mayuñ ci ndam n'est pas candidat Basour Diomaye n'est pas candidat Abbas Fall n'est pas candidat Guy n'est pas candidat euh, euh, euh El Malik Ndiaye n'est pas candidat le candidat c'est Ousmane Sonko ñun ci Ousmane Sonko la ñuy liggéey pour mu leer donc gars yi nañu bu ñu commentaire focus.